mooy suñu indicateur bopp suñu indicateur bopp mooy lan mooy bu ñu duggoon ci duggoon ci réew mi dem ci mbedd yi waxtaan ak askanu Sénégal def sondage laaj leen yéen naka ngeen gisee réew mi naka ngeen santire réew mi ci wàllu euh, euh, yorin si wàllu doxalin si wàllu et cetera et wax mm, lan mooy euh, résultat sondage boobu parce que defuma sondage bi Mm-hmm. mais dama jàpp ni euh, limite damay wax ni que il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à mettre en place ce que j'appelle un, indice synthétique de satisfaction sociale économique c'est-à-dire qu'on puisse euh, créer que l'ANSD mettre en place un indicateur boo xamante ne dañuy permettre da ngay dégg parfois ñu naan euh, l'indice du bonheur dans le monde ñuy comparer réew yi et eh essayons de construire notre propre indice boo xamante ne ci mi day capturer mm-hmm. la satisfaction économique la satisfaction sociale ou l'insatisfaction nga xamante ne après derrière on sera dëggantaan man moo sentiment c'est que booy wax ak nit ñi par exemple ci wàllu xëy tu as l'impression que kenn kontaanul mhm. sooy wax ak nit ñi ci wàllu justice d'ailleurs tu as l'impression que ñu bëri kontaanuñu mhm. sooy wax ak nit ñi ci wàllu sécurité am na ñoo xamante am na ay pàcc parce que comme ni ma ko waxee sànq président téye réew mi téyewaay téyin boo xamante ne bu ko téyewul woon amaana tey duñ fi toog di waxtaan waxtaan bi ñuy wax mais la sécurité il plusieurs niveaux mm-hmm. euh, sécurité à l'échelle des quartiers et cetera les gens les populations sont de plus en plus en danger loolu dëgg la lu yàggul dara fii man Kër Massar bi nga xamante ne foofu laa fekk baax euh, dégg naa ya Un, un, un, le responsable des Magui Pastef là-bas boo xamante ne euh, dafa gaañu parce que dañ ko suite à une agression mu doon dem julli defe naa fajar ñu agressé ko deux après yàlla def mu wàcc liggéey Euh, et loolu bëri na notamment à Kër Massar et dans d' autres zones dans dans ce pays là donc dañuy dañ koy jaale au passage di ko jaale famille am mais dañuy yaakaar naa ni yooyu yëpp dafay laaj ñu am beneen moyen bu ñu ko capturer wi euh, li ma jàpp ni également manqué na ci discours président ci wàllu euh, bilan immatériel mooy dégguma en tout cas man ce que j'appelle la perte des valeurs le problème du Sénégal dëggantaan am na lu bëri loo xamante ne dafa commencé sooxe ci wàllu jikko yi nit ñi dañ leen war a defaraat bala ñuy teg ay projet BRT et cetera tout ce qui est projet d'infrastructure tout ça là c'est bien mais fondamentalement il faut ñu jéem a xool naka la ñuy def pour euh, tabaxaat defaraat sénégalais bi parce que vraiment tey boo xoolee par exemple rey nit c'est devenu banal c'est d'ailleurs à la radio tous les jours dañ commenter comme ça banalement rey nañ nit def nañ lii agressé nañ nit et puis bon personne ne s'en émeut plus que ça et puis c'est rouler jeunesse euh, beneen bi également mooy Euh, ci sama xalaat defe naa le le ministre Sow wax na ko te ànd ci ak moom euh, responsabilité dafa di lu am solo ñun yaa koy wax sànq. liberté rime avec responsabilité nee na liberté dafa rime responsabilité. mais man dafa am mhm. je vais plus loin. man mënuma gëm nit di def politique te amul idéologie politique boo koy def da ngay am idéologie maanaam sa gis-gis bu yaatu bi nga xamante ne moom naka nga gisee euh, société bi naka la war a bindoo naka nga ko bëgg naka nga bëgg mu tëddee. Euh, ñun ci yeesal en marche et candidature bi ñu ngi ko tuddee euh, ñu ngi ko porté par la coalition yeesal Sénégal. parce que dañu jàpp ni baatu yeesal boobu noonu tënk na lu bëri ci li ñu bëgg a def ci réew mi. Euh, notre notre idéologie politique c'est quoi c'est la démocratie responsable. bala ngay woote démocratie nan da nga am toutes les formes de liberté de ceci de cela et na fekk aussi nga nangu ni que da am responsabilité ci li ngay def. te bu fekkente ni tu faillis à tes responsabilités il faut aussi accepter que la sanction puisse tomber négativement ou positivement donc loolu lu am solo la jàpp naa ne il faut vraiment que ñu. ñu ñu ñu ñëwaat ci ci ci éléments yooyu avant ñuy. ñuy mën a xuus ci ci l' aspect l' aspect matériel l' aspect matériel. Euh, professeur Ngouda Mboup wax na léegi léegi lu am solo ci euh, situation yoo xamante ne bu mu amee. jeunesse bi jóg na et cetera mm. là où je vais la jonction avec li ma doon laaj ci wàllu euh, souveraineté mm-hmm. alimentaire enfin souveraineté mm-hmm. plus spécifiquement la souveraineté alimentaire mm-hmm. parce que pour man dama jàpp ne la question de la souveraineté elle est elle est est fondamentale elle est au centre de tout réew bu fekkente ni moomuloo sa bopp yoruloo sa bopp wax dëgg yàlla sa nekkum réew des na euh, natt ko ci sa jëmm bopp rek boo nekkee ci kër te mënuloo prox ndool bi ma bëgg a bi ma bëgg a jël mooy encore une fois par rapport ak li professeur Mboup doon wax man dama jàpp ni la jeunesse qui est sortie c'est vrai elle est sortie peut-être parce que elle avait des des des elle, elle voulait se révolter contre quelque chose mais je pense que c'est euh, loolu dafa fekk un terreau fertile maanaam da nga fekk c'est pas parce que forcément euh, je n'ai absolument aucune opinion particulière sur euh, Euh, euh, leur partisan leur fan la ñu féete quoi. Euh, voilà leur partialité ou mm-hmm. non ou leur partialité ou non mais fi may waxee mooy dama jàpp ni réew mi toll na foo xamante ni ci wàllu jafe-jafe. ci wàllu xëy. ci wàllu mois de mars mi ngi fekkoon ñu nekk ci li nga xam ne mooy Covid 19. Covid beeg lépp ci biir même man ne Fatou Abdou même boo amul woon Covid fii da nga fi fekk de manière structurelle un chômage qui est quasi endémique loolu moo fi nekk ci dëgg bi cest que mën nañoo wax lu ñu bëgg mais dëgg bi mooy lan mooy ni que da nga nekk ci réew moo xamante dama koy wax fépp fu ma dem parce que statistiquement loolu mooy dëgg réew boo xamante maanaam téeméeri nit yoo jël juróom-ñetti fukk ak ñaar yi daanaka seen ñeent fukki at matul loolu mooy dëgg sociologiquement 50 euh, pour cent de la population a moins de 19 ans loolu mooy dëgg sociologiquement parlant. Mhm. et lan mooy dëgg encore moom mooy li ma wax léegi-léegi exactement par rapport ak statistiques yi. Mhm. statistique bi dëgg dëggantaan boo dëgg bu ma les chiffres officiels de l'ANSD effectivement on parle d'un taux de chômage qui tourne autour de 20 à 25 pour cent. entre 20 et 30 mhm. donc fukki nit yoo jël. ñaar ba ñett ñoo ci amul liggéey. mais natt fukki nit yu ma jël euh, euh, euh, juróom benn ba juróom ñaar amuñu liggéey donc 60 à 70 pour cent mhm. c'est une réalité donc loolu mooy lan mooy ni que on a un problème fondamental de dañu war et man dama jàpp ne c'est le vrai enjeu enjeu parce que campagne boo gis wala élection boo gis dafa war a am ay thématiques fortes man dama jàpp ni que une des thématiques fortes de cette élection là ça doit être ban naka la ñu nar a def pour saafara xëyu ndaw ñi dëggantaan mais li mu ci def wax na ko taux de croissance boo xam ne yeggul 6 pour cent nga yóbbu ko ba 9 virgule 20 pour cent. Abdou statistique yooyu mooy li ma doon wax. cest dire les statistiques. am na loo nangu ne def na ko le président. non dafa kenn lam-lameewu ko mais ana njeexital gi. bu fekkente ni ta croissance elle est totalement extravertie.

milieu bu modeste yaa may dégg daal di eh, teg ay jéego di dem di dem di dem ci kaw nag eh, les conditions doon ay conditions yu favorables eh, donc c'est extrêmement même même rek parce que da nga ma laaj ci souveraineté alimentaire cest à c'est extrêmement important parce que moom mooy en fait le premier canal pour daal di adresser la question de l'emploi des jeunes tey da nga nekk ci réew moo xamante ne da ngay jéggaane lu bëri dégg naa sànq ba may ñëw ci yoon bi di déglu benn rajo ñuy wax ni que ñu ngi annoncé mois de mars potentiellement une maanaam ceeb dafa war a mën na jee mën na manqué mois de mars bi ñu jëm maanaam mhm. fekk ñetti yaa may dégg euh, maa ngi koy wax suukar mhm. structurellement chaque année y a un déficit de cinquante à cent mille tonnes te benn compagnie kese moo fi nekk ci réew mi di defar suukar te ñu am ay importateurs ñu am ay yeneen acteurs privés mhm. ñu am suuf si fi nekk lépp ngi fii ñu war a mën a pousse pour am beneen beneen compagnie sucrière bu fi génn euh, euh, oignon maa ngi koy wax en deux mille vingt cent mille moo fi génn quatre cent mille tonnes yoo ne Fatou Abdou lii dañ koo dañ ko dañ koo gas suul ndax lan dafa nëpp xam nga la la moo ko waral parce que amuloo euh, la structure qu'il faut pour avoir le maillage qu'il faut pour la conservation des produits pour la transformation des produits parce que soble mën nañu ko transformer de plusieurs manières ah. am na d'ailleurs ñu ko commencé def fii et ba tey ki ci ëpp doole tey jii nii daanaka c'est un capital du ma tudd société pour ne pas ni faire de la publicité ni ni euh, euh, on va dire stigmatiser mm-hmm. mais véritablement ni réew bi bu ñu ko bëggee defar Fatou Abdou réew mi fu mu toll c'est l'emploi et il nous faut bâtir un état stratège maanaam tabax réew moo xamante ne dafay jiital pexe xam-xam sukkandiku ci doomi réew mi pour daal di téye koom i réew mi mënuma d'accord ñu nekk bii Sénégal ñuy defar ay autopont ñu jël autopont yëpp daanaka matière di ko fi defar te CEC e nekk fi mën ko def te ñoom ñaar ñi testandoo leen en même temps CEC e defar bu yoof bi ak bu bu bu bu pont de l'émergence bi euh, muy la euh, préférence nationale defar yeneen yi mhm. ñu daal di jël lépp jox leen ko Fatou Abdou yaa ngi am 3,5 millions d'hectares de terre arable au Sénégal yow ak Égypte yéen a bokk yem demal nga xool gëstu leen Égypte lan lay def ci loolu ñoo ñu raw fu ne ñoo raw ñëpp daanaka ci Afrique fu ne ci loolu yaa ngi am mango yuy pourrir fii nii ñoom ñu ngi ciy def li ñu ciy def sur la même superficie yaa ngi ceeb yaa ngi lépp c'est-à-dire on a on a un besoin c'est c'est fondamental c'est-à-dire tey jii nii souveraineté alimentaire Fatou Abdou moom moo war a nekk la priorité parce que nit nag bala ngaa bala ngay lijjanti ay BRT yooyu tabax ak ak yéen xomalan nit ki nekk. sa biir day la première des priorité nit nit nit si tu penses qu'on appelle la pyramide de Maslow. bala ngay lijjanti dara <laughs> da ngay lijjanti say besoins primaires lekk ba pare. parce que boo lekkulee boo fi toogee une semaine deux semaines doo nekk. donc nu ñu fexe nit ñi dund te seen dund boobu ñuy dund seen dundin dafa war a yemb li koy yembal mooy ñu mënal mëmal suñu bopp yaa ngi fii lépp mën nañu ko fee bay Fatou Abdou lépp mën na fi am. mais mënoo jël ndaw ñi nga ne leen justement les ndaw yi fiy sort di génn di di di xeex boo leen bëggoon génnee fii ne leen kaay leen dem Saalum mbay duñ dem xam nga la moo tax parce que commodité yi ñu am fii nii amuñu ko foofu donc il nous faudrait développer le concept de ce que j'appelle les cités agricoles on parle nous dans notre programme de ce que j'appelle le programme 5.1 cinq jeunes pour un mm-hmm. wax na ci monsieur le ministre xëyu ndaw yi wax na ci wax na également ci koom gi fi mu ñu jëlee en 2012 ak fi mu ñu indi aujourd'hui en 2019 mais ci souveraineté alimentaire est-ce que échoué wuñu fa parce que Sénégal lu ëpp ci li nga xam ne moom lay dundee daf koy daf koy jéggaani biti réew et problème la aujourd'hui euh, ci 12 ans de régime du président de la République Macky Sall